ci coordi en tant que coordonnateur mm. coordination alors que Doudou depuis des depuis des années mën nañu wax depuis des mois raag bu nekk yaa ngi koy def Ziguinchor yaa ngi teg objectif bi lan la woon mais tey laay gën a objectif bi lan la woon man non fekkee am nga mais mën nga ni yow mën nga wax ni amoo déception non dëggul ma la dëggul ma la dëggul ma la raag boobu waaw tey tey du yem Ziguinchor du du yem commune de Ziguinchor yëpp fépp lay yem parce que tey sama taxawaay si président ma Macky Sall bu may dugg politique dama ñëw pour ànd ak président Macky Sall gunge ko pour euh, massifier sa base électorale si sama gox taxawaay boobu Sénégal yëpp mi ngi may seede yooyu yaa ngi nii di ko seede taxawaay bu mët la ma am si satisfaction président de la République Macky Sall am si satisfaction. ba mu ñëw mu tàbb ma ma. coordonné mais mais est xam nga xam nga satisfaction boobu yow rek yaa ko am mais pas sa base ah. say sympathisants ak say militants yaa ngi leen di dégg ñu ngi kaas ñoom. mais parce que. ñoom ñu ngi kaas loolu c'est tout à fait normal xam nga lu tax. waaw non non lu tax wax lu lu tax. parce que sama taxawaañ yaakaar bu ñu amoon muy commune de Ziguinchor ñun ne ah kii de suñ su suñu doonee suñu maire suñu commune day soxla ko ma leen di wax yaakaar boobu tey la gën a taxaw parce que confiance bu ma président de la république joxoon tey la gën a nekk dëgg parce que bu mu méttee bu mu méttee man maa dem taxaw def ko meeting Ziguinchor bu mu méttee tey ñu war a def une organisation benn schéma de victoire man maa ñëw taxaw foo xamante ni dañu am chance de gagner donc tey la gën a nekk que avant te donc taxawaay bu may bu ma doon taxaw dem Euh, euh, moox la ko samedi bii euh, damay lancer financement des femmes mille femmes cent tailleurs dañuy am seen matériel de couture xaaral ma non non non baal ma loolu dinañ ci ñëw Doudou ma ne caravane médicale noonu mm-hmm. pour ma wax wax la taxawaay bu bu bu ma bu ma taxawaay si dooleem président Macky Sall parce que bul fàtte su ma mënee lu ma mën ba waa Casamance tey ñu bëgg jox ma bopp ne ma ànd nañu ak yow doole boobu kan moo ma ko jox président Macky Sall moo ma tabb. depuis depuis depuis ma am. 36 ans ba tey ma am 46 ans ma nekk si wetam di di mu may mu may jox ay confiance confier ma FONGIP yaa ko waxoon sànq confier ma coordonnateur du pôle des des grands projets tabb ku ko fa kenn tabb ma ay DG AIBD waxuma 4 mois mu jël aéroport yëpp joxaat ma ko jox ma un un portefeuille de programme de 461 milliards si portefeuille boobu. Casamance mu am fa l'aéroport de Kolda à à moderniser de Kédougou l'aéroport de Tobor l'aéroport de Ziguinchor l'aéroport de de de Cap Skirring cinq aéroports ah, si samay gox mais yow Doudou Ka li nga wax ni non non non monsieur Ka xam nga li yëpp xamoon nga ko terewul nga amoon yéene pour nekk maire Ziguinchor terewul woon terewul woon dégluwuloo président li ngay joxe rendez-vous le 23 waaw bi nga ko joxe bi ngay joxe rendez-vous le 23 waaw yéene mais 23 bi rendez-vous bi jeexagul man may gagné Ousmane Sonko Ziguinchor man la ñu dënk victoire yi Ziguinchor bi rendez-vous bi jeexagul xam nga bu ma doon ne dinaa jàngal. par procuration politique. par non par ah campagne Ziguinchor bi ñu dënk la ko yoo nga ne par procuration. campagne Ziguinchor ñu ne la campagne de région bi yoo lañ ko dënk yoo nga ne procuration man loolu ñu ne nekk naan nitu procuration ma ne Sonko mu ne dafay def euh, euh, meeting. le samedi bi samedi prochain ma def meeting bu ko gën a rëy Ziguinchor samedi prochain nga ñu je te donne rendez-vous à parce que loolu laa la ma askanu Ziguinchor wax Ziguinchor dafa nekk région boo xam ne c'est meurtri mënatuñu dem ci opposition la la une une mairie c'est un démembrement de l'État dafa mel ni nit loxoom nga ne loxo bi du ànd ak bopp bi te bopp bi président Macky Sall la loolu moo tardel suñu commune commune yu bëri c'est ñun Ziguinchor mënuñu ko nangu man sama engagement politique c'est pour accompagner la vision du président de la République Macky pour améliorer pour pour que ma ville ma région sama gox yi ñu nekk des villes émergentes loolu noonu mënuma nangu population bi di jox seen bopp opposition di di bloquer le développement de mes villes mais discours bi dérangé wu la nga demaat ci say sympathisants